wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yu tedd yi di bàyyi xel seen télévision bi nga xam ne mi ngi fii ci grande mosquée de Touba fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñëw ngi leen di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala bool ñu defal tawfiq di am mbégte lool nag di séq ak yenn jataay boo xam ne mi ngi tudd ci arab ulumul quran waaye nag mi ngi tudd ci wolof li ci daara yi ulumul quran bu ñuy wax bépp xeeti xam-xam bu mu mën di doon ilmu nangam la ñuy wax maanaam ilmul fiq ilmu tasawuf ilmu tawxid ilmul mantiq ilmul usul ilmul bayaan lu ñuy wax ci xeet yooyu ilmu nangam la ñuy wax waaye bu agsi ci téere borom bi subhaanahu wa taala nag ulumul quraan la ñuy wax li muy tegtale mooy alquran yaatu gu mu yaatu landi gu mu landi ëmb gu mu ëmb xeeti xam-xam yu baree baree bari li ci daara gi nag fas yéene incha allah taala liggéey ak yéen jëm ci lépp lu alquran lamboo li ko dale ci ak wàccam laal tuuti ci li ko jiitu ak wàccam bi ñuy wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa bu wàcc bi ñu fi jigéen ni saxaaba yi taxawee ba alquran sax fi des ci alxuraan li ko wutalee téere yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon alxuraan ni mu defiyee woon borom xam-xam yi nga xam ne arab yi nga xam ne ñoo nekkoon ci fi alxuraan doon wàcc ak seenu jekkuloo arabiya li ko wutalee seeni làkk ak seeni way alxuraan ginnaaw bu saxaaba yi jàllee ni ci ne liggéeyee liggéey yu wuute ci wet yu wuute ñi jëm ci ilmu rasm ndax bi fi yonent bi saasam nekk ak bi fi jóge lépp ni ñu bàyyi woon téere bi faw almu rasma am ci liggéey bu rëy rëy rëy ñu xam ne lii lii la baat bii baat bii la buñ ci jigéen jëm ci wàllu tajwid ñuy liggéey ci jëm ci maxaarijul xuruuf bi ñu liggéey ci wàllu qiraat yi ñu liggéey ci wàllu riwaayaat yi xam ne qiraa bu nekk ak ñaari riwaay yi am ak ñaari tariq yi mu am liggéey ci liggéey yu yaatu ñu liggéey ci wàllu tafsir tafsir ñi liggéey ci tafsirul quran bil quran maanaam leeral alquran ci alquran ñi liggéey tafsirul quran ci al ahadith annabawiya ci xadis yonent bi sasam ñi wax ci balaaxatul quran ñi jëm ci arabul quran liggéey yu baree baree bari mbokk yi liggéey yu wuute yooyu yépp nag li ci daara ji dana ci ñëw ci ay liggéey yu am solo waaye xamle barab yi nga xam ne fa la xam lu téere borom bi subhaanahu wa muy daara yi fu daara mën a nekk ci Sénégal incha allahu taala ñu fas yéene fësal daara yi fësal seenu liggéey fësal seeni taxawaay fësal seenu njàmbaar ba nit ñi xam leen xam seeni taxawaay ak liggéey bu am solo bi ñuy liggéeyal askan wi liggéey wax ci leeral bu baax a baax ci liggéey yu mag ñi bi tax saxaaba yi jàllee taabi'aan ni jàll taabi'aan taabi'aan ni jàll ba mu agsi si sunu mag ñu baax ñi yal na leen yàlla dokk yokk leer liggéey yu am solo yuñ ci liggéey seen xeeti tor yi ñu doon def seen xeeti boole yi li ñu fexe ba ku ci bind kaamil di xale xam mi woo dara ci arab bi ngay làkk jëngoo dara ci naxwu luy mën a tënk sa loxo arab yi ba tax doo sa sa làmmiñu arab ba tax doo yàq baat yi ñoom ñu liggéey ci liggéey yu am solo mbokk yi yooyu yëpp danañ ko fésal danañ ko leeral ba Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu sunu sang ba mooy du accès ci moom liggéey bi ñu ci liggéey liggéey yu yaatu ci wet yépp danañ ci indi incha allah taala ay waxtaan bu ñu fi sunu borom subhanahu wa laa bàyyee ci ñu ngi koy ñaan mu bàyyi ñu fi ak wér di ko ñaan it moom borom bi subhanahu wa taala mu leeral sunu làmmiñ leeral sunuy xol ba li ñuy def lépp ci jataay yi ak wax yi lépp yàlla na jëmmi borom bi subhanahu wa laa tax ci yàlla na ci am ngërëmam kon mbokk yi jataay baa ngi noonu ñu séq ko nag ak waa muqaddamatul xidma muqaddamatul xidma di daayira boo xam ne dañoo wuutu ñun murid yépp wala jullit ñépp dañ leen a wuutu ci néegu borom bi subhanahu wa taala muy jumaay tuubaa ji nga xam ne dafa symboliser l'islam ci ci Sénégal wala ci Afrique de l'Ouest ndax la taxawaay yi nga xamee ne moom la ñi ko tabax am da ko tàmbali ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moo joxewoon woon ndigal li te ba mu daan joxe nekkoon ci diggante ab got ay dédd ay ki bukki di ko wër di xew muy ñaan tabax bu rëy bi ñuy tabax fii wax fir li man banaw binaahu rafia wax fir li man amarahum bihim jamia tabax boobu ci fi jamono yi fi nekk tubaab yi nekkee fitnaale lool ñu ragal leen lool ñu bari ñëngunoo yëngal seen lislaam ci li ñu sémmu naalu jumaa ju réy ji ci njiital Cheikh Mouhamed mu al Karim ak ay rakam ba jumaa ji sotti kon loolu dafa symboliser l'islam bépp ndax défi la ci jamono jooju bi nga xamee loolu am na yit daayira bi nga xam ne ñoo ci taxaw mbokk yi di ay ndaw yu am ay yitte nangoo bàyyi seen yitte nangoo jël seen waxtu nangoo jël seen doole nangoo jël seen i xalaat seen lépp ñu ko jël centré ko maanaam jëmale ko ci wet gi nga xam ne ñun jullit ñëpp la war ndax taxaw néegub yàlla bi setal néegub yàlla bi defar néegub yàlla bi toppatoo néegub yàlla bi jàngal nit ñi niñ fi nekk ndax jaamu yàlla gi nga xam ne moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi mën a jaar aw yoon bokk yi loolu ñëpp la war ca daayira bi nga xam ne mooy muqaddamatul xidma ci loolu lay xëy ci lañuy gont yàlla na yàlla defal tawféex ñu ñu am ci ngërëmul borom bi subhanahu wa taala bi barakat Cheikh Xadim radiyallahu anhu kon daayira boobu la ñu jotaay bi suñ jotaayu nag ñu def ab tàmbali rek ab ubbi ci tàmbali ci li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala di alquranul karim waxtaan ci tuuti buñ ci waxtaan dina baax ñu def ab laltaay bu ndaw bu gàtt ci alquranul karim fi mu wàcc fan la leen fekkoon arab yi nga xam ne alquran wàcc na ci ñoom fan la leen fekk mbokk yi mi ngi leen fekkoon day suñu nekk nit ñoo xam ne buñ ko sañee wax bokkoon nañ ci nit ñi yées nit ñi gën a suufee nit ñi gën a ñàkk xam-xam nit ñi gën a ñàkk ay pexe nit ñi nga xam ne daanaka xeex rek nekkoon seen yitte seen biir yitte ko lool tooñ xeex rek nit ñoo xam ne wéetal yàlla nekkuloon ci ñoom di jaamu ay xërëm ay bant suufe lool li ñu sëqaloon barab yi ñu dëkkoon ëppoon leen ay daraja lool ëppoon leen waay lool ci perse yi ak ak yi arab yooyu nag ñu xeeboon lool lool xeeboon leen lool ndax seen yu baree bari ñàkk xam-xam ak ñàkk culture ak yi leen daloon yëpp ak ñàkk tawxid gu métti nag la ci gën a rëy ndax alquran li ko tax a rek moom mooy dafa tawxid yi xeer wu suufe wow nag ci la alxuraan wàcc lu jiitu mu ci wàcc mbokk yi fekkoon na borom bi subhaanahu wa taala waajal sang bu tedd ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waajtaay gën a mat ci waajtaay yi mu nekk ci seen biir ñoom waa Quraysh ñu xame ko jikko rafet ñu xamee ko ak mat ñu xamee ko melokaan yoo xam ne lu nit di mel ci ay melokaan yuñ koy taggee ak di ko nawe sallallahu alayhi wa sallam jéggi woon na ci dayoo moom moomu nag moom la alxuraan wàcc ci moom ci tënk bu gàtt ndax wax ci taarix taxu ñoo jóg téere bi moo ñu tax a jóg alxuraan moom nag moo yëkkati xeet woowu alxuraan moo darajaal xeet woowu alxuraan moo nital xeet woowu alxuraan moo def moo def nit ñooñu ñu am wàcc waay ci mboolem àdduna bi bañ xam ne lu ko jiitu amuñu woon ci dara xamuñ ci woon dara yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu am ñeent fukki at ci la alquran tàmbali wàcc ci moom alquran wàcc ay wàccin yu bokkul ñaari xeeti wàcc wàcc bu njëkk yi mooy wàccandoo benn yoon jumlatan waxida juge ci allawxul mahfuuz mooy ca denc kaayu borom bi subhanahu wa ñëw ci asamaan si ñu tiim ci barab bu ñuy wax baytul izza ci barab bu ñuy wax baytul izza fii la alquran wàccandoo ci genn guddi moo tax ba téere bi di alquran wax ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka téere bi day wàcce nañ ko ci guddi gu tedd wax ne inna anzalnaahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylatu alqadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlaa al fajr téere boobu nga xam ni guddi gi mu wàcc moo gën junniy weer di ko may mooy téere boobu ci wàcc moom mooy wàccandoo gi kon benn yoon wàccandoo gi benn yoon ci baytul izza wàccum ñaareel gi mbokk yi mooy wàcc gi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ci coobaram la def lépp lu mu bëgg a wàccee mu wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ay aaya la moo xam saar aw saar la ci ay ci diggante ñaar fukki ak ñett mooy wàccu ñaareel googu nga xam ne wàccu tafsil maanaam wàccu taq gu tàqalikoo la wàcce ndowut benn yoon wàcc googu nag ci la ci lépp ndax ci la accès ci nit ñi nit ñi mën koo jariñoo bi muy ñëw bi muy nekk baytul aziz kenn mënu ko ci jariñoo wàcc googu nga xam ne la ko dale ci aaya ji ba ci njëkk wàcc muy iqra bismi rabbik alladi xalaq ba ci aaya ba ci mujj wàcc di am ñaar yoo xam ne borom xam nañ cee wuute ñenn ñi ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina moo njëkk wàcc moo mujj wàcc ci aaya yi am ñu ne wattaqu yawman turjauna fihi ila llah tumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ñu ne aaya boobu mooy bu mujj wàcc saar wi ñu jàpp ne moo mujj wàcc it mooy ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaja fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba saar woowu moo mujj wàcc la ko dale ca wàcc gu njëkk muy iqra ga ak ba ci saar wi wala aaya yi nag bokk diggante bu yaatu diggante boo xam ne def lu ne xew na fi waaye bala ñu agsi si yooyu nañu leeral téere bi téere bi doon wàcc ban téere la téere bi doon wàcc mooy boo xam ne mbokk yi mooy dusturul umma maanaam xeeru ci boppam seen delluwaay bi ñu war di dellu di fa jële ay ndigal di fa jële ay tere lépp ci téere boobu la nekk téere boobu mooy boo xam ne li borom bi subhaanahu wa taala di digal jaam ñépp mi ngi ci li mu leen tere lépp mi ngi ci waaye li muy dig ku jëfe digal yi bàyyi tere yi mi ngi ci li muy koo kuy def tere yi bàyyi digal yi mi ngi ci na ko Cheikhuna Alxadim sunu sang ba radiyallahu anhu waxoon amrun wa nahyun wa waadun kal waidi maan xat utbitat fihi irshaadan liman fahima kon téere baa noonu téere boobu nag mbokk yi di téere bu am ngëneel nga xam ne xayri yi ci nekk dañ faral di wax ne lu ci laal dana wuute ak lu ci laalut bu ñu xoolee alquranul karim ñu ko waxee léegi guddi gi mu wàcc moo gën junni weer lan moo ko may xayri jooju mooy alquran mi wàcc ci moom alquranul karim weer bu mu wàcc moo gën ci weer yi chahru ramadan alladi unzila fihi alquran borom bi subhanahu wa taala bi muy présenté weer koor waxut chahru ramadan alladi furida fihi siyam déedéet chahru ramadan alladi unzila fii alquran la wax kon li daraja ji muy tiitaroo moom moom weeru koor alquran a ko jox xayri yooyu muy muy gën leneen lu moom ci weer yi mbokk yi alquran yëmut foofu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu wàcc ci moom moo gën ci mboolem mbindeef yi ñëpp moo ci gën ndax ca leem déedéet xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne alquran moom wàcc na ci ñoom ñoo gën ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar borom bi subhanahu wa taala kon wan ñu ne xeet wi gën ci xeet yi mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu leen ko may ngëneel googu alquran mi wàcc ci moom ndax ca leem déedéet biir xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñi nga xam ne ñoo ci jonjoo téere bi di ko jàng ak di ko jàngale ñoo gën ci xeet bi yi ji topp leen ñoom it ñu nekk tànneef biir tànneef muy xayrukum man taallama alqurana wa allama kan moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla garanti ay waxam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuha yàlla nee na kii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom du du waxantu de moom day lu mu wax maa ko waxloo du waxee bànneexam mukk moom moo ne kon ki gën ci yéen xeet wi mooy kiy jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale kon mbokk yi téere boobu nga ne li daal laan ndax ca loolu yam déedéet barab ya nga xam ne fa la ñuy jàngee alxuraanul karim dëkk boo dem kër yi ñuy jàngee alxuraan ñoo gën ci dëkk ba dëkk boo dem biir dëkk biir kër ya néeg yi ñuy jàng alxuraan moo gën ci néeg ya mbaar ya ñuy jànge alxuraan moo gën ca kër ga nga xam ne barab bu fa gën a màgg gën a jonjo alxuraan gën a saf-sap alxuraan moo gën ca barab ya ci benn gox bi benn kër yi mbokk mi sa néeg sax boo fi nekkee na nga xam ne ruq ba nga jagleel sam njàngub alxuraan lal fa sab tàppi teg fa sab kaamil xëy na da koy topp du yem ak mukk pegg ya ca des seen ca néeg ba mukk ca àdduna ndax ci loolu ngeen la yem déedéet mbokk yi kayit yi ñuy def alquranul karim ñoo gën ci xeeti kayit yi kayit yi ñu bind alquran ñu nekk ay kaamin ñu móol ci alquran ak ñu bind ci loxo alquran ñooy tànnee fi yi ñooy sangi kayit yi ñooy kilifa kayit yi mbokk yi garab ya ñu xar def ko ay àlliwoo di ci bind téereb yàlla bi am nañ tawféex ndax ñoo gën mboolem garab gu amut àlliwoo ji ñu bind alquranul karim mbokk yi karne yi ñuy bind alquranul karim ca daara yi ñoo tànnee fi kaye yi big yi ñuy jibinde alxuraanu karim ñoo gën ci big yi xalima yi ñuy jibinde alxuraanu karim ñoo gën ci banti xat yi bu dee bantu xat bu mën a doon bu dee gattax bu dee salan bu mu mën a doon bant boobu mooy sangu bant ya ndax la téere bi ñu ciy bind mbokk yi xayri ji dafa landi dafa yaatu amul fu mu yem kon mbokk yi ngëneel lu lu màgg màgg màgg loo xam ne mi ngi téere bi ci dunduk doomu aadama bi ak faatoom lépp di di di njariñam mbokk yi alxuraanul karim li ko wuutale ak téere yi nga xam ne mooy téere yu ko jiitu mooy alxuraanul karim waxi borom bi subhaanahu wa la joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci dara yokku ci xaraf wàññiwu ci xaraf alxuraanul karim wax la joo xam ne léppam barkeelu la léppam dafa barkeel ca loolu amu ci téere ci jiitu woon alxuraanul karim jàng ko da ci jariñu alxuraanu karim déglu ko danga ci jariñu alxuraanu karim jàngale ko dégtale ko bind ko looy def lu ci jonj rek danga ci jariñu damay faral di wax ne même bu dee xàmmeewoo alif ak waaw féréw ijji xamoo dara ci téere bi jàpp ba set jukki jublu penku xar téere bi di xool xaraf yi sa loxo yi bom romb téere bi sa gët yi romb téere bi danga ci am ab yool boo ci yéenee jaamu borom bi subhaanahu wa taala kon ngëneel alxuraan amul amul fu muy yem alxuraanu karim it borom bi subhaanahu wa taala daf koo garanti loolu amuloon ci téere ji des daf koo garanti ne kenn du ci mën dara moo koy sàmm inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafidun boo demee tawret ji fi ji wax lafa la fa nekk euh, du tawret ja wàccoon ci yonent yàlla Muusa alayhi salaam lu ci bari wàññi ko na ci te dañ ci jëw ci kanam insha allah taala ci in ci ay ana jiil ñoo am waaw dañ naan la ancien testament ak nouveau testament mooy kon ana ji li bokkun ay wuute yu bari am ci alxuraan nag dara dara dara dara lu ci man a mejj amut ku ci dugal lu ci bokkul fasaasa ñu gis ko fasaasa rek yàllaa ko garanti boppam anu benn saay-saay boo xam ne e, benn baat la dindi woon benn baat la dindi jël jële ko fa mu dëkk yóbbu ko fa des def ci kaamil baatu xayra xayra la dindi woon dane inna diina inda llaahi daf ko dindee eh, wa man yabtaxi wa man yabtaxi gayra al islaami diinan fa yaqu falan yuqbala minhu wa huwa fi l min al mu dind xayra ji nekk foofu ne wa wa man yabtaxi dind xayra ji yàlla na ci yàlla musal daal ne al islaama diina al islaam moo ci tege mu dugal fa xayra ci diggante boobu ne xayrul islaam diine ju neen yàlla mën na ko nangul islam waaye loolu xale yu ndaw yi ñoo lay daal di wax ne la lii du nii maanaam garanti gi ko yàlla ga yàlla garanti amul téere bu mu ko mas a bu mu ko mas a garanti bokkut ak yeneen téere yi kon ci tasarruf di soppandiku alquranul karim noonu la wuuteeg li nga xam ne mooy alxadisul yi nga xam ne wax yi borom bi subhanahu wa taala la jumu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jàll ko ci aw làmmiñam moo tax sañ ngaa wax ne borom bi subhanahu wa taala wax na nangam ci alxadisul qudsi wax baati arab yoo xam ne rutewul noona ca wax ja noonu la wutee xadis yoon ba léegi dal ne aw wala na ko yonent bi saasam waxe woon loolu sañ ko cee wax waaye alquran moom bu sañoo wax ne yàlla nee na ci alquranul karim lu di làkki arab lu dul dangaa indi xuruuf ya ak ak alfaaz maanaam baat ya nga xam ne moo root ci téere bi suñu indi yeneen sañoo ko làkk sa maanaam ma nga ko déggee sañoo ko mukk ci àdduna kon loolu lu ko wuti la ak yeneen yi kon mbokk yi naka noonu alxuraanul karim day noonu la wuuteeg téere yi ci des yépp ci xeeti défier yi mu défier woon askan wi mu fekk alxuraan dafa fekk arab yi jekko arab lool yonent bi mas a ñëw bu nekk ngànnaay li la borom bi subhaanahu wa la jox muy nekk sa mu'jiza sa kiimtaan bi nga xam ne ci ngay waare ci la ci ngay yéeme ñi ngay woo bañ woon laa wuyu seen xol nooy ci yërmande borom bi subhanahu wa taala daam fu mu ko jaarale ci misaal boo xoolee yonent yàlla Isa ak yonent yàlla Moussa la ñu jël misaal rek yonent yàlla Moussa mi jiitu bi muy ñëw ci di woo Firawna fekk na saxaratu Firawna maanaam njabari Firawna yi am doole lool am kàttan lool am xam-xam lool mën a njabar lool yàlla jox ko ngannaay loo xam ne day wedam loo jabar ci tënk bu gàtt mu yat woo xam ne fu mu ko sànni ñu xam ne lii lii du lii du njabar ak bu dugalee loxoom ci poqtaanam génne mu weex tàll la ko ca borom bi defal ci tawfiq defal na ko ca keroog ba nga xamee ne njabar yi eh, Moussa Firawna jaaxle na ci Moussa daal di woo njabar yi ne leen damaa bëgg ngeen werem loomu Moussa gañeel ma ko njabar yi fasaase dañ ko doon laaj ñan ko bu ñu gañee Moussa loo ñu jox ndax danañ am ak fay ay na lan la ajran in kunna nahnu ghalibin ndax danañ am ak fay wa qaala naam innakum idan la minal muqarrabin wala innakum idan la minal muqarrabin boobaa da ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñu ñu ma ñi ma jege lañ ñu bëgg ca lool bëgg a jege Firawna bëgg am daraja bëgg am wàcc waaye ñu man ci xeetu tàggatoog waajtaayu njabar ñu def ko keroog ba ñu dagee ca seen yor yoor ga ni ko sóoratu Taaha indee ba ñu dagee seen seen yor yoor ga ñu sànni seen yat mu nekk jaan Moussa sànni yatam mu nekk jaan lekk seen yat yépp ñu xam ne lii du njabar ndax ñun dayam njabar moom ci ñun layam yàlla ne inna amanna bi rabbi Haaruna wa Moussa gëm nañ borom bu Haaruna ak Moussa xool ak yàlla buy leeral ab xol inna amanna bi rabbi Haaruna wa Moussa Firawna mañ doon ma leen gënoon terroriser ñu gën koo ragal jàkkaarloo ñoom qaala amantum lahu qabla an aadana lakum qabla an aadana lakum innahu lakabirukum alladi allamakum sihra falaw qata'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf walaw sallibannakum fi juzuu'in naxl wala taalamunna ayuna ashaddu azaban wabqa xoolal terroriste gii danaa leen def nangam naa leen def nangam ban dinaa leen daggat salab leen luñ ko wax faqdi ma anta qaad innama taqdi haadihi l-hayaat li ngay wax li ngay yor fii la yem ñun moom kii ñu gëm xam nañ ko suñ njuumte yi ñu weesu kay la ñuy wax waaye lii dootu ci dugg xool ngëm yàlla bu duggee ci xolum nit dootu dootu ragal moo ko Cheikhul Khadim ne lastu axaafu durra xalqin ba'da maa fawwadtu amriya ilaa rabbi sama mooy ab jaam bu xasee ragal yàlla dëgg-dëgg ji lépp jox ko yàlla dootu tiit yow yow mi amul toog ragal yàlla yaa yaay gis lii terroriste nit ñi nga ci tiit waaye ki amul ragal yàlla du ko faale Cheikhul Khadim ba muy nekk ci digg tubaab ye ci digg bal ye ci digg soldat sa ak ba muy nekk daaru mën naa nag Tuubaa xameewu ko benn yëg-yëg am ndax ki muy wéetlu ko mi borom subhanahu wa taala loolu moo jafe xoolal yonentu yàlla Isa mbokk yi moom bi ñuy def dafa fekk ay atibaa yu am solo yu jàmbaare muy ñu man a faj di jombale ci faj yonentu yàlla Isa mu àgg ci foo xam ne ci faj nekk mu àgg sa mooy lan di laal ku gumba mu xoole di laal ku waxut mu wax ku laal ku déggul mu dégg bay sa wa wax yi moo sax fay bay dekkal ku dee sax ci ndigal borom subhanahu wa taala foofu mën si mu waaye ci tënk mbokk yi ci jeexal yonentu sasam lii ko yàlla jox mu mu àgg sa moom dafa defi arab yoo xam ne dañoo déggoon arab lool jekkuloo arab ya lool bu muy sax dagg ci xokaas ba ñëpp xam ne dage nañ ñu xam ni jekkuloo arab ya bañ tàmbalee nag in hada ila asatirul awwali du ak ak ak njabar du du du du ay téere du ay téere yu njëkk laak ay way laak lu leen yàlla wax da leen defi yow alxuraan ne bu ngeen mënee indi bi xaalis misli bu ngeen mënee indi lu toll ne alxuraan ngeen indi ba jàng ñu leen bi asr suwarin misli bu ngeen mënee indi fukki saar ba jàng ñu bi suuratin misli benn saar rek laa leen benn saar bu ñu ko mën a indi ba caag mu ne leen qul leen jamaatul insi wal jinna ala yaatu bi misli hada alquran laa yaatuna bi misli walaw kaana baaduhum li baadin zahiraa nag waxuñu jinne yi beru di waaj góor kooyel nit ñi beru di waaj borom xam-xam yépp jinne yeeg nit ñi nañ dagale seen expérience tànn yi ci ëpp xam-xam ñu bëgg a indi lu mel ne alquran ba adduna tukki duñ ko indi ba adduna tukki duñ ko indi loolu kon muy mu'jiza xaalida boo xam ne ba fi bi sax nekkee ba alxuraan dara soppikuwu ci dara yokkuwu ci dara wàññiwu ci ca pexe yu nekk nag noonu jéemal nañ ko xam naa dañ ci ñëw incha allah taala ngir bëgg alxuraan jóge fi ngir bëgg alxuraan raaf yàlla jàppandal ko looli nag boo ko ci moo gisee yi ci gën a rëy mooy yàlla jàppandal wala xad yassarna alxuraan li dikri fahal min mudakkir yàlla ko lool ba bëggoon a jël lenn livre yenn nii rek bëgg koo bëgg koo mokkal jafe-jafe yi ci am nga mën a mokkal alxuraan jamono ju ne muy gën a jàppandi jamono ju ne muy gën a yomb gone gën ndaw di doxantoo téere borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne tey bu ñu lakkoon kaamil yépp ay gone yi mën nañoo lëlu léegi daal koy génne ci ci ci ci diir bu gàtt génn ko ci ay ay barab yu wuute machine yi ci àdduna bi yépp buñ paaloon ñëpp benn mënatut kaamil jaww jii ñu nekk muy tuubaare da ngay gis moom ay kaamil di fi balle ci waxtu wu nekk kon mbokk yi loolu mbirum borom bi subhaanahu wa taala la kon mbokk yi xam naa ne ñi ngi ci jeexal sunu jataay bu njëkk fa séeni ko ànd ak yéen incha allah taala ci jataay yii di ñëw ci alquraanul karim bi muy wàcc ndoorte la wàccam ci makkatal mukarrama ba ni yonent saasam gàddaaye dem madinatu munawwara ba ni ñu del siwaate makkatal mukarrama ba diirum ñaar fukki yi ak ñett incha allah ak bi fi yonent bi jógee alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi liggéey yi nga xam ne liggéey nañ ci alquran maraaxil yi mu jaar danañ ci ñëw incha allah taala ci bañ ko dagale ci néeg yoon ni ko Sayd ibnu waxee di ko dagale ci ay dari gileem ak ay xoliti tàndarma di ko dagale ci ay xeer ba ni mu nekk mu bi bi ñu tiim maraaxil yi nga xam ne jaar na ci bind ko tombuñ ko tomb ko maasuñ ko ba dañ àgg ci niñ ko maasee riwaayaat yi leen leen wutale eh, xiraat yi leen wutale incha allahu taala danañ ci ñëw ci yoon wa gën a yaatu buñ ci yàlla defee tawféex yi ñu fekke ko ak jàmm ñoo ngi ko ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ñu fekke ko mbokk yi ñoo ngi sant sunu mbokk techniciens yi nga xam ne ñoo téye woon technique bi ba ngeen ñi mën a gis te ñoom ñu nekk ci ginnaaw eh, di liggéey liggéey bu am solo di ñaan yàlla boole ñu defal tawféex ak ngërëm yi ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen doon topp jotaay bi fu ngeen mën di nekk ci àdduna bi ñoo leen di sant leen gërëm bu baax a di ñaan borom bi subhaanahu wa taala defal ñu dégg ak topp seen mbokk alhaji Fadlu Ndiaye Cheikh Ndindi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal tudxil al-musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al-wafi